mën ko prendre en compte ci projet yoo xamante ne amal nañ ko ci euh, bii nii mhm. projet yu ñu am par rapport ak euh, ak état bi may mu Maïmouna ci économie bi nga indi tey ci yeewu leen on passe directement au point corona balaa kur feeñ di jóge fii di daal sama kaw <laughs> Miss Corona eh, lu xew tey wax ñu <laughs> coro yaay suñu xarit wax ñu point corona bi lu ci xew <laughs> trois cas positifs jaajëf waay ak lan. day dem ministère. sur 544 euh, tests réalisés 3 cas ñoo ci ñëw positif. Euh, donc euh, mu ngi mu ngi mu ngi wàccaat loolu lañ bëgg mu gën a wàcc. Mm-hmm. zéro cas importé du AIBD du par voie maritime amul fen fu cas importé jógee. deux cas contact la ñu am ak benn cas communautaire. am nañu 13 personnes yoo xamante ni wér nañu. y a pas de cas y a plus de cas graves. Oh, macha allah kenn nekkatul réanimation. ça c'est, y a pas de décès non plus. sant yàlla on continue de croiser les doigts et de prier. voilà donc euh, bu mu fi ñëwee ak léegi con 15000. 711 cas yu positif la ñu jot a décompté 15 349 yi wér 326 yi malheureusement ñàkk seen bakkan et 35 personnes sont sous traitement. que 35 personnes non yow moom tey moom dama